الله يا من لا إله غيره salaamaaleykum mbokki taalibe di siyaare ñëpp waaw di siyaare waa Bambilor Actu waaw man nag maa ngi si Balla Seck itam waaw maa ngi bokk si ñi di saytu fii liggéeyu waañ wi waaw bis mi nag bis la boo bisu waaw nga xam ne sëñ bi yàgg na kaa woote mu Cheikh Mouhamadou Moustapha ànd ko waa daayira bi daayira Ahmadou Moustapha la boo xam ne mbokki taalibe bi yàgg nañ ko moo nekk euh, fukk ak juróom-ñett édition bi 18e édition bi waaw ñi ngi ñi ngi nekk si liggéey bi di ci di ci góorgóorlu ni ko sëñ bi bëggee daanaka boobu ba léegi doon tey tuut tànk lañ waaye daanaka sëñ bi nàmpatal nañu si bis bi daanaka duñ ne lépp fekk nañu fi fi ba taxoon ne sëñ bi boole ñu boole woon ñi si nga xam ne ñu nekk si saytu liggéeyu waañ bi ñu koy ànd ak tamit bokki taalibe yi soxna yi ñëpp rek waaw bi yaatu ci wàllu añ guddi gi tamit dinañ teg ay mbana yu yu yaatu ci wàllu wàllu wàllu reer beeg yooyu naka noonu tamit si lañuy si lañuy si la ñuy waajalee maanaam profité si liggéey bi ngir ngir ngir ngir xéewal yi teel a noppi muy añ bi bu ko ñu mën a tàmbali cérémonie officielle bi 4 heures nga xam ne bu ñu si jógee rek dañuy mën a tàmbaliwaat maanaam liggéey bi muy nekk si wàllu reer beeg yooyu nga xam ne bu à partir de vingt et une heures incha allah rabbi dañuy yàq reer yi mbokki taal yi mën a génn dem nga xam ne dañuy fasaani fanaani wéyal guddi gi waaw lu jiitu loolu nag liggéey bi moom tàmbalee daanaka depuis depuis depuis bërki démb ba léegi ndax bu ngeen seetloo démb guddi maam Cheikh Ibrahima Fall gi noonu lañ ko jàppee liggéey nekk ci liggéey bi togg ay bernde teral jaam yi ba guddi gi ñu nekk ci guddi gi dem dallu ji bi ñu xëyee lañ nekkaan di ci liggéey bi waaw loolu daal la ñu woon leneen loo xam ne tamit lii nañ ci daanaka mbokki taalibe suñu mbokki soxna yi nga xam ne ñoo jiite waa mi ñoom xëy na lu si bëri ñooñu ki gën a xam incha allah nooñu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa Gorom yëpp di jiital si nuyoo bi suñu jëwriñ sëriñ Moustapha Mbacke suñu yaakaar tey ëllëg di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi mooy ko wér ak ak wérle ba liggéey bi mu sumb fii di ko liggéeyal maam di ko def fii si Gorom mu àggale ko si daraje Seexul Xadim mi nu yaakaar di wax nag si bis bi waa bis bi moom ñu ngi si waañ bi waa ñu moom macha allah di sant waa gorom di leen ñaanal yàlla yàlla may leen ak wér ak ak wér ndax jàpp nañ si bis bi lool ñoonu dooleel di ñaanal suñu jëwriñ yëpp yàlla may leen ak wér ak ak wér di ñaanal suñu xalifa bi sëriñ Muntaxa yàlla may ko wér ak wérle bu mu àggalee liggéeyam maamam bi ci darajee seexul xaddim mi nu yaakar wa ñun ñu ci wañ bi wa fi mu toll ni paré nañ suñu añ ñu ngi dess ñu ngi ci reer bi di sant ñepp di gëreem gërëm ñëpp nag alaykum wa rahmatullah ñaanal sëñ muntaha mbake mu yàgg fi lool sax da andak wër ñukoy ñaanal suñu yaakar tek ëlëk Cheikh mustafa mbake suñu borom gën ko yagal suñu kanam lool sax ba liggéey bi muy liggéey ci tundu yépp mu agalé ko té and ko mbokk taal yépp wa di amat mbekté bu baakha baax rek ci bis bi ñuy woté fi ci Gorom do di ci sante Serigne Touba bu wér tombeek bésub tam xarit bi tay wa di ñaalat bu baax baax serigne Moustapha mi nga xamni ni waral li lepp tay mo mo taxawu ndaw ni ba ñu mëna taxawu bes bu melni tamit di ñaanal suñu borom yagal ko fi lol xana di wax ci turu jeewriñ Allah yitin rek di sante mbokki talibé yépp rek mbokki talibé ak wa dëkk bëpp rek ndax gis nañu bis bi ni bis bi démé ak taxaway ni mu démé sant nañu waa dëkk bu baax a baax ndax gis nañ ni ñëpp génn nañ waa dëkk bépp génn nañ ñëw jàpp ci liggéey bi jàpp ci bâche bi organisation beeg waañu yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax ak fédération bi ñu ngi leen di sant bu wér a wér muy waa yëmbal waa Ceencuur waa Géejawaay ñëpp rek ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax ndax gis nañ seen taxawaay ci bés bi ñuy ñaan ci barkeb Seexul Xadim yàlla nañ ko yàgga a teewe ay ati at lépp luñ ci ñaar rek yàlla nañ ko suñu borom defal ci barkeb xasida yi sant nañu bu baax a baax jaa ngeen jëf